réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. fi nga xamante ni moo di DGE fan yi mu nekk sëlëbu yoonu ki nga xamante ni moo di Ayib Daffé mandataire ki nga xamante ni moo di président Ousmane sonk waa tey jii nag yoon boobee wetu si yoon benn yoon ndax utoon na nag ñoo xamante ni ñoo koy gunge. ku si mel ni avocat Ousmane Sonko bii ngeen xamante ni moom ngeen di gis nii si image yi di maître ci Ciré Clédor Ly ak ki nga xamante ni moo di IC bi maître Ciré Clédor Ly mii nag ginnaaw bi nga xamante ni dem nañ fa tey mën nañ ne dugguñ sax fi nga xamante ni moo di si biir moom moomee nag dellusiwaat na si li nga xamante ni moo leen fa yóbbuwoon moom mii nee na ki nga xamante ni moo di Ayib Daffé da ko wookat ne ko man nag maître tey damaa bëgg nga gunge ma comme yow avocat avocat nga kanaa bu ñu demee nag dinañu bàyyi ñu daal di dugg waaye nee na daal bi ñu demee bàyyiwuñ leen benn yoon ñu dugg sa bunt ba la ñu yem ki nga xamante ni moo di IC ba nag nee na lu ko fa yóbbuwoon mooy comme moom si wàllum yoon lay dox mooy que ne daal buñ demee li nga xamante ni mënuñ ko jox ay dafay muy fichier de parrainage yi buñ demee ñu daal di ko koy jox mu laaj leen ndax nag dugal nañ ko si biir wala dugaluñ ko si bu fekkee dugal nañ ko si mu jox leen li nga xamante ni moo di fichier de parrainage yi waaye gis nañ ne biñ demee ba sa bunt ba daal lañ leen daal di baare mënuñu dugg fi nga xamante ni moo di si biir